الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi mbokk jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yi mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am mbégte bu baax tey ñu ngi fii ci buntu kër xalifa saaxibul faydatu tijaniya cheikh mouhamadul maahi ibrahima Niass yàlla na fi yàgg te ànd ak wér umra édition 2022 ànd ko Kossy TV gannaaw bu xalifa bi tàggatikoo di kaat si jàmm gannaaw bu ñu ko dalalee gannaaw bu mu fii ci capitalu faydatu tijaniya di medinatu cheikh ibrahim gannaaw bu ñu dugg ci fii ci xabru bi moolana cheikhul islam alhaaji ibrahima Niass bay non la mbolo mi ak talibi takku andak mom wacce ko fi ci bir këram gannaaw bam dallo kilifa gi ànd ak yeen fase len indi indil xibaar bu neex ñu bayal len ak borom xam-xam bu mag oustaz Baye Mar lenn laaj ak tontu mu àndi ko xalifa faydatu tijaniya cheikh mohammedul Mahi Ibrahim magnes yal fi yagg te ànd ak بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن مولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني ورضي الله عن وارث سره وصاحب فائدته العظمى مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم من الحاج عبد الله أه، سيدي ومولاي أه، فضيلة الشيخ xalifatu saaxibi alfayda sayidi mouhamadul maahi ibrahim Niass xaadimul umma yàlla def na fan yi nga jóge ko ci omra mubaaraka omra boo xam ne bi nga xamee ne toog nañu ak yow di dañ kumpa di laaj di laajaat dem nañ ba gis ne ci tont yi ngay tontu ay njëriñ yu bëree bëri mi ngi làpp ci biir ñu mën koo bokk ak nit ñi ak àdduna bi ak umma bi ñu am occasion nag bu em ni jamono toujours taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi dañ daan jàmbat ne xew-xewu na euh, duñ ciy jot niñ ko bëggee ak nam doyee dëgg yàlla may ñu ay ndaw yoo xam ne góor góorlu nañ ba àgg ci média foo xam ne lu xew danañ ko génnee ca nañ ko waroo génnee ak nam doyee dëgg muy Euh, équipe bi nga xam ne mooy waa réseaux sociaux yu Medina Baye ñu di lay gërëm bu baax ci occasion boobu nga xam ne danañ ci mën a jàngatee jàngat yoo xam ne yu bëri la te ay njëriñ yu bëri danañ ci feeñ suñ laaj bu njëkk sëriñ bi mooy euh, avant invitation bi nga xam ne euh, saaxibul jalaala al malik salman bin abdul aziz mooy ki ko invité woon avant loolu ñaata yoon nga jot a dem ci xaramayni sharifayni ak ba nga fa gëjee léegi avant invitation bi kañ la. incha allah bisimilah asalaamaaleykum oh, gërëm seen jotaay gërëm seen itte euh, gërëm itam seen càkkutéef ci pour nit bu amee lu baax na ko bokk ak ñëpp euh, te lu gën a baax ci. bokna ci yi gëna bax ci li nit di am mo yàlla xéewal ko mu dem màkka dem kaaba ga dem siyaare qabr rasul euh may gu kawe la yi xéewal gu kawe la du sama premier dem màkka dem na màkka 4 fois yo xamné ne aj la dem na fa 2 fois yo xamné umra la bi ma ngi jëm màkka légui 84 quatre quatre-vingt-quatre la te dama décidé woné duma du màkka ah xaw xawma mbaaxu yàlla rek moo ma xëcc yóbbu ma màkk hmm? euh, ci ci ci mbaaxu nit ñi itam aussi ñun Sénégal yëpp Sénégal yëpp Sénégalais bu nekk muy Sénégalais bu góor ak Sénégalais bu jigéen yàlla terale na ko gëm yàlla yàlla terale na ko mu gëm yàlla yàlla teralee na ko itam gëm yàlla googu mu gëm dina def kemb kattanam pour mu feeñ senegal yëpp ci bokk yam góor ak jigéen parce que gis naa fa ay sénégalais yoo xam ne ci ca ba ci diggante Makka ak Mérina dëgg-dëgg di nga gis euh, senegal yu bëree bëree bëri góor ak jigéen ay journaliste ay euh, classe bu nekk ñëpp a fa ah yaa ngi ca Kaaba ga te ñoom ñëpp itam li Sénégalais bu nekk bëgg pour Sénégal moom lañ bëgg mooy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yëkkatil Sénégal yal na yàlla may jàmm Sénégal yal yàlla méngoo Sénégal ci zahir ak ci baatin ñun Sénégal yëpp comme ay Sénégal yàlla may nañu suñu xol ñu bëgg ñu bëgg lu baax bëgg lu baax suñ bëgg lu baax du du du lu baax lu simple rek mais lu baax lu bàyyi ko ci yàlla moom lañ bëgg moo tax ñu ngi def suñ ngóora pour amee ko ci yàlla ah góor ñeeg jigéen ñi mag ñeek ndaw ñi ñëpp ñoo ci ànd ñi ko xam ñi ko xamut ñëpp ñoo ci bokkoon ñoo ñoo bokk ci loolu teranga yàlla la pour ñu teranga jooju yàlla may ñu yàlla nañu yàlla may ñu gën ko mën a sàmm gën ko mën a comprendre gën ko itam mun xam euh, dem naa Màkka Umra du man maay benn Sénégalais bu dem Sénégal yu bëri fa dem Sénégal yu bëri fa dem euh, yal na yàlla nangul ñëpp buma de kuy dem sa kuy dem makka nak ku nek am nga la boale ci sa xol bëgg yalla fajal la ko deug dëgg dem aw ben soxla pour maaxi ah soxla bu ma am Sénégal la Sénégal moy soxla bu ñëk moma ma parce que bu bu fi bu ma mu sax fi moy ma ngi fi parce que njaboot gang fi set yang fi ngi fi ngi te Sénégal lañ am amuñu fenen donc man ñun ñëpp Sénégal bu nekk war naa bàyyi Sénégal ba xelam ci Sénégal ne du moom mii état bi mu toll mooy Sénégal ne Sénégal gii ñëw gannaawam mooy Sénégal Sénégalu sëtam yi Sénégalu doomam yi sénégal jarbaatam yi Sénégal bii ñëw si Sénégal boobu nga war a bàyyi xel ah, mais si Sénégal gii nga toll moom du foofu la Sénégal am kon bu ko fi amale te euh, sama dëgg-dëgg mm. mooy Sénégal dama demee ba ci yonante sallallahu alayhi wa sallam parce que ubbi ni ñuy dem ba tiim koo vraiment ma ne ko daana am ku daan ñëw fii doon sa di la wax di la wax ne rasulu show bi ay nit ñoo ma ci yow nit kooku tey mu ñëwaat tey doo yow di wax ak mu mu ngi wax ak yow ci Sénégal mu ngi wax ak yow ci Sénégal yow yàlla yàlla nag ñu teralal Sénégal yàlla nag ñu yëkkatil Sénégal yàlla nag ñu doolil Sénégal ci suñu doomak ak suñuy sët suñ ñëpp luñ am Sénégal yàlla na leen dooli ba ñu yëg ko yàlla nañ nii ni ni ni ni Medina ak Màkka yëkkati ko yàlla moo ko def yàlla moom mi ngi fi te jaamam rek lay may ah wax naa ko ne maa ngi lay ñaan bu may ñibbi kunuusu dun yàlla bëgg nga may ba may may si àddina bu nu su dunya yëpp laa bëgg nga may ma ma yóbbaale ko Sénégal mais bu ma xaajal may may may ba may may may bu nu su dunya yëpp laa bëgg nga may ma ma yóbbaale ko Sénégal euh, bu ñaareel bi euh, mooy dañoo gis ne buur bi nga xam ne moo na ngan gi goo xam ne gu la ci ambassadeur bi bi fi ñëwee ak euh, soxla yi am fi mu surtout ku mel ni yow dimension bi nga am te amuñ sikk liñ la wax eh, yaa ngi ciy def li nga mën te yaa ngi koy continuer waaye bi nga wàccee imaaraat foofu lañ njëkk a yëkkatee maanaam imaaraat lañ commencé wan la la sa lu ñu yitteel la yëkkati sa ba nga àgg ñu dalal la fa la dalal eh, ak fiñ la jaarale yépp eh, laaj bi mooy ba nga fa gëjee ci 80 yi nga wax ba léegi 84 mooy na changement am na da ñëw jàngal nag ne yéen da leen dem ba mu xóot bàyyi leen di tond ci kaw kon tabax ya ak étage yu jóg yo euh, c'est sûr que changement am na surtout ku gan gi ku buur di invité fañ lay jaarale ak yi gis du bokk ak nit simple la muy gis waaye ñaareelu laaj bi ci soppati changement yi ndax idéologie bu autorité yu Arabie saoudite ci niñ daan xoolee li nga xam ne mooy euh, sufiyank yi euh, rawatina tariqa tijaan yi ndax loolu am na changement boo xam ne seetlu nga ko ndax daan nga fa dem ay yooni yoon te daan nga liggéey itam ak ñoom ndax changement bi ci kaw ak ci kuut euh, nan la demee. waaw noonu la am na jot naa toog naa fi jot invitation. ne Arabie Saoudite ma leen man demoo ñu ma ko di nga hmm? parce que génne naa dem Arabie Saoudite ci sama programme mais yàlla lu mu bëggal nit ki nit ki mënu koo fànq il faut dina ko am delloo Makka Makka euh, Makka ak Medina réew Saoudi yu boobu ma gisee beneen beneen àddina la du àddina ba ma xamoon 84 beneen la euh, lu nekk yëkkati ko su ma waaye benn waaye may xool ne ma ah lii de am na développement ma ne ko non lii du développement lii feeñ feeñu xaalis la. xaalis a feeñ xaalis a feeñ mais développement ci. ci feneen la nekk ci feneen la nekk ah yal nañu yàlla may développement. feeñu waayu xaalis ak développement du benn xaalis bi feeñ na ma boo amee xaalis rek nga tabax nga buub ah tout ça rangale ay oto. le manifestation de l'argent là mais développement nit moy moo am nit moo koy am nit moy meuna nit moy meuna deg développement du feeñal ku ni ci ci biti mais développement dëgg-dëgg moy sama relation ak yow sama relation ak ki suñ doxal suñ bëgg-bëgg moy lan suñ càkkuteef moy lan càkkute mooy dolleeku ci xam-xam parce que bàyyi nee nañu mooy tabax tabax lu mu yëkkatiku yëkkatiku te xam-xam nekku ca dafay daanu lu mu gàtt gàtt te xam-xam nekk fa dafay yëkkatiku donc xam-xam bu wér bu dëggu loolu mooy développement loolu mooy boo ci àggee rek parce que xam-xam bu amee rek borom foog mu def dara booy xam-xamantu coow ngay def booy xam-xam def lu nit ñi laal moom ngay def gis nga Cheikh Ibrahima mi am xam-xam mun ne àdduna bi yëpp nangu nañ àdduna bi yëpp gis nañ xam-xam àdduna bi yëpp nañ ko parce que dafa def nit ñi gis ah nag moom da ngay da ngay rek ah. Sénégal noir Sénégal blanc femme noire femme blanc femme et loolu mooy xam-xamantu yal nañu ko yàlla may yal nañu ko yàlla may doolewuñu ci xam-xam bokk na ci su may ñaan itam foofu mari na mari na yal na fa hmm? yàlla yëkkati baatu xam-xam yal na fa yàlla yëkkati alal parce que ñaar yooyu rek ñooy ñooy développement boo amee xam-xam am alal mën ngaa développé mais bo amul xam-xam am alal oh la la musiba la yàlla ñu yalla may xam-xam ba buñ amé alal xam luñ koy doyee xam-xam alal du pour nga tabax sa bopp mais mu nga tabax 100 ans ngay tabax 100 ans ci kanam xale yi bu ñëwee duñ tumuranke duñ son euh motax euh, su ma ñaan bokku na ci yëpp yëpp yëpp yëpp Sénégal yal na ko yàlla dolli Sénégal yal na ko yàlla may jàmm yal na ko yàlla tabax euh, du du man kenn maa ko wéetoo parce que Sénégal yi fa nekk yëpp itam loolu mooy seen soxla ah waaye bokk naa ci Sénégal yi ko soxla quand hmm. euh, nit nag ci àddina mooy jëf mooy jëf bi ñu yàlla indee daf ñuy wax ne i'malu i'malu fa sayara allahu amalakum jëf leen li ngeen di jëf yàlla dan ko dina ko gis ku nekk bëgg na bu yàlla di gis te jëf fekk mu rafet yàlla ñu ko yàlla may hmm? mu ngi koy gis waaw mu ngi koy gis euh, guddeeg ba cek waaye yàlla na ko yàlla na ko rafetal moom hmm? bëddal na sayyiaatihim xasanaatin ndax euh, xaramay dañu euh, xam nañ bu baax kan mooy Mawlana Cheikhul Islam Al Ibrahim membre fondateur ci ligue nga xam ne moo boole woon monde islamique yëpp ba pare nekkoon membre boo xam ne bu actif la comme ni ñu ko oustaz Ibrahima Mahmoud Diop daan nettale ndax euh, sa waxtaan ak sa daje ak waa Arabie Saoudite mawaqif yu xam-xam yu ñeme yooyu yu ñaamaar yooyu te daan jëriñ àdduna bi ak umma bi ndax euh, daan na feeñ xam nga खामगा मोनसे समावबावो ओमफ्राय मा योगु मुसुमावबावो योगु मुसुमावबावो donc kuyogu sobof do defa hisab kenen li ñew ci yow muy deug rek lool ngay wax waaw li ñewé da nga koy waxé do ci yëm soppi dara hein donc bu ma gisee teeru yu may teeru mais damay ku ñuy teeru nii kan la damay damay jaax ku ñuy teeru nii ku ñuy defal nii ku ñuy ku ñuy anamu anamu vraiment dama ko gis du ma am complexe li ma xam te parce que loo jëlee si baay baay jëlee ko suuna te dara gënu ko wér jëlee ko si alxuraan dara gënu ko wér amul foo ko wax macha allah ah? parce que fi nga koy waxee da nga gis ñëpp ngi nangu di nangu ndax ci biir Màkka mm-hmm. ay mbooloo dañ ma invité ne naa dem ay tiyaan la ñoom ñëpp ay tiyaan la mm. naa dem ci ñoom ba ma demee fekk ñoom ñëpp a ngi génn ci mbedd mi di ma teeru bëree bëree bëri hmm? rang bu gudd a gudd a gudd taxaw ci mbedd mi di ma teeru ma wàcc ay arab yu weex tal di teeru benn nit ku ñuul di yëkkati seen lo di yëkkalante loxoom di ko fóon ah ci nuyu leen ñoom ñëpp ñu kër këri ci sama kaw après ñu dem ci salle ba ñu dem leen présenté diw docteur nangam docteur nangam docteur nangam docteur nangam docteur médecin docteur nii ay kii di jàllul amal ay ay ay ay ay ay nit ñu kawe ci xam-xam yu kawe xam-xame àddina bi ñoom ñëpp ay banquier benn ni rek lañ mu présenté culture solaire la génnee ñi ci des yëpp ci àddina bi xam-xame àddina bi moom lañ feesee waaye ñoom ñëpp yàlla xéewal la leen ay tiyaan lañ ay ay ay tiyaan bi ma toogee ñi présenté waaw ñii bu may wax ak ñoom lu may wax ak ñoom ah lu may wax ak ñoom waaw ah, bon d'accord xam na lu may wax ak ñoom liñ xamut ñoom loolu laay wax ak ñoom ñom dañu xamul loolu lay wax rek alors yàlla def tawfiq vraiment euh am am ben way mune mune ma arabiyatu bi rek dafa doy ni ngay làkki arab rek dafa doy inshallah ci màkka wa ci mu mune ma lu melni ci màkka ya ko fi ñëk am téru la ci mbedd mi nii ah autorité waxu dara ya ko fi ñëk am waaw yaa fi yëkkaat donc bon la ko daan aaye nekkatu fa li fi nekk léegi ñeme na ko bàyyi na nit ñi euh, li ngeen bëgg ci seen xol yi manifester leen ko dara nekku ci te li ngeen di manifester du lu bon hmm, topp yàlla tudd yàlla balu yàlla jégalu yàlla ñaan yàlla vraiment loolu ku koy aaye vraiment kenn xamul lan loo ko bëgg a remplacer kenn amul Euh, ay laïcité ay laïcan fa yoo xam ne yu yu ngand lañ ñoom tamit ñëw euh, vraiment dañ la bëgg a complexé loo bon d'accord d'accord mais wax nañ seen wax yu bëri ma ne man daal benn question rek la am pour yéen fii ngeen bëgg a toxal nit ñi bu ngeen leen fi toxalee fu ngeen leen di yóbbu hmm? fu ngeen leen di yóbbu da ngeen de dem ba xam fi ngeen leen di yóbbu ne moo gën a garanti fii doon wax nii toxal nit ñi rek leen fu ngeen leen di toxal ngeen indi faw ngeen indiaat beneen faw daa boo xam ne du jeex xaaj man daal def naa ne laïcité jaru ko daal jaru ko ci àddina defe naa yéen ñëpp Poutine war na leen jox leçon Parce que Poutine, laïque là, d'abord. Euh, ancien communiste là. nit nit bu nekk la Poutine te barki démb dégg ngeen ko muy def istichat ci alquran muy wax di dëgërloo alquran ne ñëpp war nañoo jàng laaya alquran boobu waaye alquran bi daf wax ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بوتين من الله يبوبو أمر لهم جارود يولي ورنينكو ورنينكو نانغو ورنينكو خم تب بوي جاي لاي سيتي مولو كو دون ها ها لا لا لا لا جاي رك مولو كو دون ها باسكو نيت كو جار فو نيك لا نيت كو جار فو نيك لا كي كي كي نغاندي ادنا بي سي لا بوك waaye dem na ba gis ne alxuraan sukkandikuwaay la te boo bàyyee sa xaw ma nu ñu koy waxee boo wàccee sa sa ànd ànd boo dem fekk sa war dañ naan wax ànd boo war ànd boo war mu toj waaye bàyyi moo ko jubbanti ne doo du dafay toj da nga cay fekk borom waaw fekk borom alors ba nag loolu mooy li nga xam ne xew na ci ñun ca Màkka da nga gis ne nañ fa daan xeexee suufiyanke surtout tijaaniya da nga gis ne soppeeku na bu baax rabitatul alam islam yi bi bàyyi nekkoon fondateur mel na ni yëg nañ ne bàyyi manqué na leen secretaire général bi wax na daf ma bëgg a gis parce que dafa am lu mu bëgg a waxtaan ak man moom ma nga reyaat ma ne ko man mënu maa dem man mënu maa ñàkk ñibbi Kaolack parce que vingt vingt sept janvier vingt sept ramadan bëgguma mu fekk ma fudut Kaolack donc il faut ma ñibbi mu ne ma waaye boo toogee fekk ajjuma rek dana ma ne leen damay ñibbi boo toogee benn ajjuma avion yi jafe peut-être damay ñë damay ñibbi rek yàlla def ñu abal ma avion mu indi ma ba Nigéria ñëpp si alors donc bon Cheikh Ibrahim radiallahu anhu que góor ci góor yi àddina bi ah lu góor di def def na ko ba mu ëpp parce que ñun def ñu daan wax ne def leen lu ngeen mën ak lu ngeen mënut loolu la ñu daan ci lettre am bay ji muy ah? waltazimu waltazimu luzuma ma laa yalzam bon donc loolu moo doon dundam moo tax mu ñeme mu ñeme ko sant keneen hmm? moo tax itam euh, euh, dëggam dëggoom dëggoom ci àddina dafa wér ñëpp ko nangu ñëpp ko nangu dañ koo nangoo xam-xam bu wér dañ koo nangoo fit bi ma demee Màkka ba dem ca xorom ba lu ma njëkk seeti mooy maqaamu maqaamu Ibrahima ndax ma nga fa mu nekkoon wala déet ma dem fekk ko fa mu nekkoon vraiment am na ay moment yoo xam ne da ngay jooy rek ay fàttaliku am na da ngay da ngay da jooy rek parce que euh, nga fàttaliku bi gars yi ni dañ koy war a toxal mm-hmm. faysal ne toxal leen ko olomaa yëpp d'accord ci bàyyi na ah ah mm-hmm. Ken du ko toxal parce que nangam parce que nangam dali bin bind jox len mais ken war ko toxal bu makam Ibrahima di dess fofu ba léegi hmm. senegal participer na ci ñuko fa dess lo ci jëmmi Cheikh ibrahim hmm. senegal participer na ci ñuko fa dess lo ci jëmmi Cheikh ibrahim ma ngi tok hmm. ben égyptien ngi tok di waxtan ak man ben la ko Cheikh ibrahim la mu ne ko doomu kii njëkk a julli hmm. ci SRT jàmbur oh. hmm. moo njëkk a njëkk a julli SR te dëkkul te dëkkul Égypte hmm? ci moom la amee xoolal yoo xoolal yu kawe yooyu jiite SR maqaamu Ibrahima borom xam-xam yi ne mu la leen dundoon ah eh, lu ko may xam ak njàmbaar borom xam-xam yaa ngi fa may ñemewul mais ah, bo gisé sa bop hmm. do def dara sa bop rek ngay gis bo gisé sa bop da ngay xëccu hmm. sa bop bo gisé yalla nak yalla rek ngay xëccu bo xëccilo yalla yalla nangul la defal la lu ëpp li ngi doon li ngi doon gënt allah ndax tuddu nañ fa Cheikh Ibrahim naam tuddu nañ ko fu gën kowe ndax jeexitalam fa fekk nga fa taalibey baay yoo xam ne baay moo waxoon ca kaw si ne yéen ñi ci néeg bi liibaru ceeb mënu leen koo jeexal mais ëllëg fu ngeen teg seen àdduna bi da ngeen fa fekk seen bopp fekk nga taalibey baay yu bëri màkk ñu teertu la loo xam ne mi ngi soog a am te itam e, la ca gën a neex itam mooy comme ñu ngi ko nettali woon ñu bëri ne nañ la ñu ngi amee lijaasa litlaaq te Baaba Lamine moo ko signé kon jeexiti baay ma nga màkk ci nam gën a kowee Égypte mi ëppoon xam-xam fàttaliku fàttaliku ba gën a kowe kon macha allah jazakallahu xeyran waaye dafa am gis nañ ne fi ñu la dalaloon am na autorité yu mag yu jóge woon ci yeneen réew ci àdduna bi. mais non man buur laa woon foofa parce que fi ñu dalal buur yi lañ may dalal. buur bu sol man xaadimul umma léegi autorité yi nga xam ne ñoo doon daw di ñëw ci si la seet si am na ci ñoo xam ne ñu kowee ay grade lañ ci wàllu euh, pétrole ci Nigeria am na ci ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne léegi laaj bi foofu kilifa yooyu doon la seet si ak intellectuel bi nga xam ne moom nga amee di wax pour luy jëriñ peuple yi koo toog di wax ak moom ban ban lecture nga am ci sa daje ak ñoom ci ne ñoom ñi ngi xelaat yoo xam ne pare nañ pour développer Afrique pare nañ pour développer Sénégal. waaw ah, euh, Afrique yi nekk Sénégal rek moo parewut pour développer wu. Sénégal li ñu développé yëpp mooy wax. loolu moom bu ñu sa wax nañ ko bàyyi. wax wax rek wax rek wax wax wax wax rek. mais dañoo bëgg a xaru nag pour. bokk ak dëgg ci àddina bi. pour Sénégal xamal ko defagu ci itteem bis bu ci defee itteem nag dina dem. macha allah incha allah xamaguñ. exactement lu ñu bëgg. ay sentiment moo ñuy taal rek vous voyez. mais lan la exactement jànguñ ko ni ko war a jàngee parce que école français moo ñu jàngal école français li mu lay jàngal lim xam li français xam rek loolu lay jàngal hmm? li français xam rek loolu lay jàngal ni français nekkee noonu la bëgg nga nekkee moo tax

idéologie politique dugg ci biir idéologie politique du ci biir da nga gis ñoom ñëpp ñuy yëngatu mais idéologie politique boobu sax comme ko wallaay xamuñu ko parce que parce que Sénégal dafa tayal a jàng Sénégal dafa tayal jàng ah hein? Sénégal dafa tayal jàng dafa tayal Lire, boo xasee génn université c'est fini foog nga ne yeexal nga xam-xam yi te foofa la jàng door a commencé hein? foofu ngay commencé di seet livres yi foofu ngay commencé di seet idée euh, théorie yi nga gis yëpp fu ñu bàyyeekoo fu ñu dëkk ak ñu ko génne théorie bu nekk nga xam cosaanam xam fam bàyyeekoo gën koo xam xam nga ko université xam-xam bu gaaw mais naka nga koy gën a détaillé nag ba xam sax borom théorie boobu nu daan añee ak daan reewee macha allah kon yëpp euh, Sénégal tayal nañ fu jàngee fu jàngee noonu ñu néew ñoo koy def donc man culture bi ñuy wooteel seen bopp vraiment dañ koy mbëlelali rek mais amuñu ko pour man pour man ah voilà. waaw foofu nag ñu bëri lu rëy la ñuy séntu ci yow. li sa baay waxoon yow ci biir Sénégal nga dem yow itam ne ko dénk nañ la Sénégal te yéen yéen a ñu jàngale ak bil asbaab soo ñaanee yàlla ba pare da ngay jël moyens yi nga xam ak li léegi looy wax. mooy ñu ngi ñu ngi ci àlla xaal. waaw li li ndaw ñi nga xam ne ñu ngi li waxoon. waaw Baye mu ne man ay wax rek laa am. waaw te jubbanti. waaw jaas yi ci sama loxo. pour ma teg nit ñi si yoon. ay wax rek laa am pour ñu ànd ñun ñëpp jubbanti te li ma leen di wax maag maag yéenay ànd di ko def. Mm. ah defuma ko santuma leen ko dem toog fële maag yéenay ànd di ko def mm. loolu loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg bon jamono bi jamono bi ñu toll. yéen ñëpp xam ngeen ko parce que yéen a ngi ciy dund ne ñun moomuñ ko ñun bokkuñ ci hmm? parce que ñi ñuy jàngal dañ ñoo génne ci suñ jamono yóbbuñu ci seen gis-gis ak seen gis-gis yi jamono ak seen bëgg-bëgg jamono foofu la ñuy toxal ba ñu fa toxalee mënuñ faa adopté wu à 100 pour cent mënatuñoo dellu niñ meloon bu ko muy muy musiba bi nga xam ne ci la ñuy dund ba léegi ah moo tax euh, nit di la ñemee wax man man lay man layik la man nangam la man nangam la te te duñ dara parce que xamuñ ko vraiment vraiment xamuñ ko ah parce que lay lay laïcité boo ko xamee da koy daw ni ngay dawee jaar ni ngay dawee jinne noonu ngay dawee laïcité waaw ah, amna nak nit ñu simple boo wax ñu non laïcité toujours am mooy séparation de la religion euh, voilà ndondi intellectuel ndondi yi foofu lañ toll waaw hein. fekk laïcité ëpp na lool laïcité moy nit ki bul nekk ci nit parce que ku la tàggaleeg diine ku la tàggaleeg diine tàggale sa état ak diine lan la sa état di remplacer à la place hein bon lu gëna mag lu muy remplacer moy loi loi mo ñu teunk yoon moo ñu teg dëgg la yoon lu dëggu la ah ñoom am nañ yoon boo xam ne tëral nañ ne yoon bii moo ñuy tënk waaye yoon boobu fan la em ak ñun fan la em ak ñun ah yoon boobu may na la liberté boo xam ne loo bëgg a def def ko feeg lor nit nekku ci feeg lor sa morom nekku ci loo bëgg a def rek defal lu baax la parce que lor sa morom baaxul waaye yoon boobu yoonam nekkut ci moom yoon boobu yoonam ne yoonam nekkut ci euh, euh, ci yow say comportement naka la yoonam nekku ci tu es libre hein defal lu la neex defal loo bëgg a def fekk lor sa morom nekku ci rek def ko rawatina nag jéem a lor état bi boo ko defee rek jotee nga ak ñoom waaye lene du loolu yow ci sa bopp yaa moom sa bopp def ci lu la neex yoonu kenn nekku ci yoonu kenn nekku ci ñu bés ba ngay uteeg yoon rek bés ba uteeg yoon nag di nga xam ne nga ak yoon voilà donc culture bu duggante bi ci àdduna bi fa duggante nit bu gisee lu bees dafay yéemu parce que maa koy door gis mais boo émoo ci yéemu rek

ñu foog ne jeexal nañ xam-xam te te te vraiment ABC wu xam-xam duggaguñ ci biir. lii jëriñ parce que xam-xam mooy mooy joxe résultat joxe résultat boo xam ne dafay jëriñ nit waaye xam-xamu mokkal tari rek waaye vraiment bon parce que mokkal nga ko tari nga waaye du tax a loolu moo tax a jóg xam-xam. xam-xam mën naa def moo ko tax a jóg ñun ci suñ daara maa ngi fàttaliku temps bi ñu daan jàng ci Baye Madou Baye Madou daf ñu daan wax ne dàll dàll yi dàll yi kii yi ñu daan sol mu ne dàll yii nag ku àggut ci seulement chiite doo ko fi sol ah. <laughs> ku àggut ci daraja laajal ma laajal lu la neex ku mënta àgg foofu doo sol doo fi sol dàll yi donc bon ñi ngi ci daara ji mm-hmm. mais ñi ngi jàng xam-xam mm-hmm. ñi ngi jàng xam-xam xam-xam boobu moo téye Sénégal parce que ñun ci gannaaw fàttali ko bi nga xale boo déggee borom xam-xam la boobu école amagu fi mm-hmm. ah école yu ndaw rek am école xale yi benn benn benn benn daaw bu ñu ne borom xam-xam rek daara ji lañ ci daan jublu après indépendance am nañ indépendance amuñu ay fonctionnaires yu doy ah dañ daan abbi ay fonctionnaires waaye am nañ indépendance amuñu jàngalekat yu doy te c'est am nañ indépendance amuñ xam-xam bu doy hmm? mais quand même sax nañ ba ba xam dara la sax nañ ba xam dara sax nañ ba am dara mais pour man ah, pour man léegi ñaari question rek moo des benn bi mooy président de la euh, bokkoon na ci ñëw seet si te président de la république Alaaji Macky Sall ñun aadawoo nañ maanaam miin nañ ci yow jotaay yu mel noonu bu amee euh, ñaan dana am ñaan boo xam ne du pour jëmmam rek mais pour Sénégal yëpp ak intérêt Sénégal yëpp parce que moo jiite Sénégal waaye ak ay nasaax ak ay laaye biir yoo xam ne ci situation yi toll itam dana ci mën a def dara euh, foofu looñu biñ toogee wax naa ko ne monsieur le président bés biñ la njëkkee oote na ñu ne gañe nga keroog mu ma fekk ci benn gàmm keroog dafa taw ba suñ gàmm nga dafa tas ndax taw boobu ma ne lii de message la pour Macky mu jublu ci mbay bu jubloo ci mbay dina barkeel Sénégal macha allah wax naa ko wax naa ko Macky wax naa ko itam aussi bi ma ñëwee ci Kaaba gi sama soxla bu njëkk mooy Sénégal ah ñaareel ba yow prési comme président institution ah yëpp bëgg naa ñu am jàmm bëgg naa ñu daal bëgg naa ñu xam nu ñuy tabaxee suñu suñu réew. bañ koo tabaxee ci xuloo bañanteeg xeebanteeg waaw voilà loolu loolu lañ bëgg. ñu ngi ñaan yàlla pour Sénégal yal na ko yàlla ñu ngi ñaan yàlla.

buur Makka ni ko gaañee waxee te mooy buuru Arabie Saoudite di al malik Salman bin Abdul Aziz moo ko lii ahdam Muhammad yàlla na leen yàlla dimbale ci lépp luy jëriñ lislaam invitation boobu ak invitation yi Soudan ak invitation yi Maroc ndax loolu ak yitte bi nga ko jox mën nañoo jàpp ne dëbin bu bees pour buum ji nga xam ne moo takke woon pays bi takke woon Cheikh Ibrahim ak monde arabe ak monde islamique fi mu nekk nii buurin bu bees am na pour delloo si at buum ci booy boobu ndax mën nañu jàpp. gis nga mairie na mairie na mosut a delloo ba naa am yàlla maye dara mënu koo delloo waaw hmm? te dafay dooleeku jëm kanam. Hmm? loolu ci sax def la ah, te loolu bokkoon na ci sama xadaf yi bu leen wax ne bàyyi rek la woon El Hadj Abdoulaye la woon rek jeex na man mii mënuma ko mais damay jëm ànd ak yéen ñu jéem ko ba ñun ñëpp ñu d'accord ne mën nañ ko. léegi am na xale yoo xam ne man wóor na mën ne ñoo ma ko ñoo ma ko dàq léegi. voilà alors loolu yëpp parce que barke Medina la. Hmm. Medina musul ñàkk euh, musul ñàkk influence ay doom. Hmm. alors euh, ñëw na. le ministre rak la ñu ngi wax naan amna na doctorat wala mu ngi koy préparer yow nga mën a ko baye man buguma dem ñu parce que école bokkut ak dara école loom buñ la rawé rek raw nañ la té ñetti at a ni man janguma ñom ñu ngi jang bu ma dé raw nañ ma ñetti at mu ne ma kenn rawu la kenn rawu dama jang alors bima madame vraiment njàng dama ko ko ko ko ko àggale ko tout de suite. oui ma am licence hmm, bu excellent ci kawe ci laa am. waaye année boobu ma koy lettre bi bàyyi mujj bind jógee pour dem Londres man la ko bind boobu maa ci ñaanal. Mm-hmm. ne li ngay xaar mu ngi ci kanam dina ñëw wax na ko ci lettre bi ah. mais lii moo xew ci taarix mm. bu bu leen ma fonk ndax loolu mm. Ah. Mm. alors donc bon bàyyi xam ne mairie na xam na xam na xam na li fi bàyyi

أمنا بنش شكل بالدهرة دي لا القرآن لا حديث لا اللغة العربية لا كولتور لا أن جنرال aussi boo xam ne Sénégal yi ñoo ko tànnal seen bopp wutal ko seen bopp waaye bële ñëw na folli doole yi bii ndax xaalis la ànd ak ak dara yaag nangam ak nangam ak nangam donc ak ak ak fetal dafa ànd ak fetal aussi teg ci boo ne piir ñu génneel sa réew waaye sëñ Bamba xam na ko Maam Alaaji xam na ko alors ñu ñu dem ba nga xam ne euh, bu fekkee ci daara ji nga jàng dañ naan la yow analphabète nga hmm? analphabète analphabète moom la moom la ñuy xoolee moom la ñuy jàppee baat boobu mooma bokk na ci ma gën a naqari te kii di ma ko wax gënumaa xam ah dañoo utee nuñ xamee rek waaye gënumaa xam maa ko gën a xam sax hmm. parce que li ma xam ci école am moom hmm. moom xamu ko ci sama Médina di nga fi gis benn intellect benn waa daara dégg na arabe dégg na français mu ngi foratu ci anglais mu ngi fora am na ñuy foratu léegi ci perse ak turc ñu ngi ko ñu ngi ci yëpp ñu ngi koy jàng pour am xam-xam donc xam nañ lan mooy xam-xam alors am xam-xam ba pare xam lan mooy xam-xam ak am xam-xam ndax bu weer dee ma fayeeku duñ benn hmm? lycée voilà loolu la moo tax bugguma bu bu buñ testé rek ñu noot ñu noot ñu rek dëggaat ñu dem loolu ba Alaaji Abdoulaye daf ko daan bañ. ah buñ ñu noot rek woon ñu ne ñun ñooy wa yéenay buur yene amee xaalis mais nag voilà. nga xam-xam xam-xam xam-xam la jotewut ak yi ngeen di wax dara. moo tax. Euh, léeg-léeg ma yëkkati sama ci seen kaw. <laughs> Ah, parce que nari na la fittal ñu ko nari la. Hmm? ko defee pour pour nari dafa am authenticité. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. du du caaxaan na dëgg la. nari mm-hmm. ah, na dëgg ah. ala foog dëgg nekk ci biiram. voilà loolu nañ jublu ci suñu suuf si ak suñu ndox mi jëriñoo ko ah nañ jublu ci suñu suuf si ak suñ ndox mi jëriñoo ko alors donc il faut ñu préparer suñ bopp te liñ am pour préparer suñu bopp léegi léegi ñu toll ni mooy suuf lañu amagum ak ndox ah ñu jublu ci exploiter ko parce que suuf si buñ ko laajee mu jox ñu ndax yàlla ko sant ndox mi yàlla ñu ko sottil moo ñu ko may ci ak li ci pour le pour ñu jëriñoo ko te nañu ko jëriñoo dem ci biti uti du maye ah, ñi fi ñi dem ñëw ñëpp ñëpp vraiment tanewuñ bu baax ñi fi ñi fi toogoon am nañ kër rek na mais amul luñ amuñ luñ ci bon euh, intellectuel yu mag ci gouvernement bokkoo ci société ah c'est ça wala sax ji tan la wax daara ji am na loo xam ne mënoo ko am voilà tout ça là voilà donc bon ñun ñëpp nañ xam suñu Sénégal euh, xam nuñ koy jàppee xam nuñ koy bëggee xam naka la ñuy nekkee ay citoyen yoo xam ne dëgg la jàng naa rek jàng naa ci téere yi xam naa citoyen compara euh, euh, compatriote ah compatriote tout ça du xam-xam du dara. mbokku téléspectateur Kossy TV mbokki internet yi liggéey bu am solo bi la nga xamante ne yéen a ngi àndoon ñun fii ci buntu kër xalifa saahibul faydatu tijaaniya Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér dëgg ngeen kàddu yi am solo yi nga xamante ne moom la jëlee si umra édition 2022 di gërëm bu baax a baax sas Baye maar si liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaatal na ko ànd ceeg Kossy TV waaye di gërëm bu baax a baax yi nga xamante ne nii ni ñu ngi doon bàyyi xel liggéey ba am solo entretien bii nga xam ne waxtu wu ne rek moom ngeen ni xaar suñu ñun di ko séntu suñu ñun seen mbégte moo suñu kóolute di am mbégte bu baax a baax si liggéey ba am solo bi li nga xamante ne jagleel na ko képp kuy taalibe Baye si biir réew mi ak ci bitim réew waaye di gërëm bu baax a baax borom Kossy TV Cheikha Seydou Tiane dana am yal yàlla may ko jàmm bu baax may ko fan bu gudd ba ànd ak wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu umra édition 2022 fii ci capitalu faydatu tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass yàlla na fi yàgg te ànd ak wér liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV